Absa Ndiaye la euh, nekk ndaw dëkk fii Touba investi sur la liste ABS end beesal Sénégal euh, ñëwoon juste rek euh, accomplir sama devoir citoyen en tant que citoyen sénégalaise en tant que aussi investi sur la liste ànd beesal Sénégal. macha allah li ma remarque bi ma jot a def parce que bi ma ñëwee xaw naa ñëw ci rang bi xool ay quelques bureaux. mais li ma gisagum daal vraiment dal na sama xel euh, benn remarque rek laa def mooy représentant parti yi xaw na laa gisul seen présence dëgg-dëgg ci bureau yi comme ni mu doon demee à chaque fois. mën na mën na mën na am impact parce que tamit euh, boo nekkee ci liggéey di ko liggéey ba mu toll fii. Euh, ñëpp ñëw di sàkku si ñëpp bokk mu nekk loo xam ne dafa war a am transparence parti bu nekk waroon nga am sa représentant si biir bureau bi mu toog ba lu ñuy vote mu xool déroulement bi loo xam ne gis na ko loo xam ni demewul noonu mu mu wan mu mën koo signaler mais bu fekkente ni kenn nekku fa ah, da bàyyi lépp si loxo yàlla rek mais heure depuis doo doo amoo kenn ku la fa loolu moom mën na handicapé lu bëri si liggéey bi moom remarque bi ma def nag vraiment gis naa ni euh, l' essentiel a été fait gis naa ni aussi lépp mat na parce que man pour man liy handicapé war rek mooy ñu ñëw fekk ni bureau yi parewul wala jumtukaay yi nga fa war a fekk yëpp fekkoo ko fa te vraiment bureau bi ma dugg gis naa ni lépp li nga xam ne moom la ñuy soxla pour accomplir suñu devoir rek fekk nañ ko fa macha allah. Euh, askan bi li ma leen di message ma leen di lancer rek ñu ñëw seen devoir la. en tant que citoyen ñu ñëw voté suñu voté ba pare ku ci nekk nga dellu sa kër nekk ci say activité ba résultat yi génn ñu ñu déglu ko teewlu ko euh, que le que le